asalaamaaleykum euh, dal leen ak jàmm seen seen seen codeur donc euh, tey dañuy continuer suñu formation Microsoft Word maintenant euh, tey dañuy essayer def hmm, les zones de texte voilà zone de texte maintenant dañuy cacher règle bi donc c'est affichage règle voilà pour règle bi disparaître maintenant tey zone de texte moo ñuy moo ñuy intéressé zone de texte benn outil boo xam ne daf ñuy permettre tey ñu bind texte ci biir Euh, bu ñu ko bëggee déplacer aussi dafay simple léegi supposons ko ñu générer du texte aléatoire égal r a n d voilà donc fii nii on a besoin de deux paragraphes et chaque paragraphe cinq phrases donc tey euh, pour ñu indi zone de texte dañuy ñëw onglet insertion comme ça insertion zone de texte donc fii nii am nañ des zones de texte prédéfinies donc yi nii ay zones de texte la yoo xam ne dañ ko créer ba ba pare mën nañ cee utiliser benn bu ñu neexee donc pour ñu jël bii par exemple wala bii dañ ciy cliquer tout simplement donc mu indi lu ñu zone de texte bi voilà donc voici notre zone de texte donc zone de texte bi mën nañ koo déplacer bu ñu neexee mën nañ ko yóbbu fu ñu neex voilà mën nañ ko tamit personnaliser par exemple bu ñu ko sélectionné mën nañoo changer couleur de fond bi euh, gis nañ ni que c' est bleu voilà mën ñoo ñëw remplissage ñu choisir rouge bu ñu neexee voilà gis ngeen euh, mën nañoo cliquer ci euh, carré bu jaune bi pour ñu wàññi arrondi bi voilà gis ngeen ni mel wala pour ñu yokk aussi comme ça gis ngeen zone de texte mën nañoo utiliser genre yi nii voilà donc ce qu'on aussi mooy nañ ko supprimer euh, ñëw insertion voilà zone de mën maintenant ñu choisir dessiner une zone de texte voilà donc daf ñu indi benn croix ñu cliquer glisser voilà donc fii nii daf ñu indi benn zone de texte mën mën nañoo bind bonjour par exemple bonjour ñu sélectionné ko yokk taille bi donc yi nii dinañ ci ñëw après yokk taille bi par exemple comme ça mettre ko donc mën nañoo wàññiwaat suñu zone de texte voilà donc euh, utilité zone de texte mooy tey jii ñu am possibilité zone de texte bi nii ñu yóbbu ko fu ñu neex fu ñu neex ci document bi donc bu neexee mën nañ ko indi ba fii nii bu ñu neex aussi mën nañ ko yéegal ba ci kaw comme ça donc mën nañ ko déplacer euh, ci suñu document donc mën nañoo cliquer ci biir ñu ñëw format contour choisir sans contour ok comme ça donc gi gis nañ ne day mel ni texte simple ah, alors que mi ngi ci zone texte donc mën nañ ko déplacer mën nañ ko yóbbu euh, fépp foo xam ni Euh, voilà ci biir document bi comme ça voilà donc euh, c'était tout pour les zones de texte